maa ngi tudd Soxna May Mbacké ñu gën moo xam ci May Mbacké Jamil euh, je suis experte en stratégie et euh, management euh, cadre dans les finances euh, maa ngi am 29 ans. mais c'est vrai que man bu dee par rapport ak Mbacké Mbacké yi am naa enfance boo xam ne xaw na différente muy man yaroo ma fi maa ngi yaroo États-Unis ak sama yaay ak sama nijaay donc c' est par la suite ah que ci laay doog ñëwaat Sénégal donc entre temps aussi diggante États-Unis ak Sénégal maa ngi jaar France voilà euh, defee sama adolescence yëpp entre 14 ans ba euh, pratiquement 18 ans. Euh, donc voilà donc c'est vrai que euh, enfance bu nekk ak ay spécificité am te xëy na kon mën naa ne am naa enfance boo xam ne xaw na wuute tuuti ak enfance yi nga xam ne yenn soxna Mbàkke Mbàkke yi moom la am. alors man sama tàmbaleem jàng ci wàllum diine États-Unis la tàmbalee parce que xam ngeen ne Cheikh Mouhamadul Mourtada dafa def liggéey bu am solo ci bitim réew dëkk réew yi nga xamante ne mooy réewu nasaraan yi yu mel fu ci nekk boo demee États-Unis état boo dem am na kër Serigne Touba am na kër Serigne Touba goo xam ne dañu fay jàngale alxuraan ak xasida donc c'est vrai que tàmbale woon naa na bi ci wàllu diine waaye dëgg-dëgg sama njàngum xam ak diine mi ngi tàmbalee France fi ñuy wax euh, Touba Marseille euh, ci loxo yi sëñ Modou Guèye ak euh, ku ñu wax sëñ Bàcc Diop également donc euh, falaa jànge alxuraan falaa dalee jànge alxuraan falaa jànge euh, yenn xasida yi falaa aussi tàmbale jànge xam-xam dama koy nangu bu baax ndax damaa jàpp ne li ñu war a laaj mooy lan la ñuy émancipé wu ndax émancipation mooy génn ci dara donc ci lan la ñu mën a émancipé wu dans ce bu fekkee ne dañuy génn ci Euh, ñuy euh, noot jigéen ak di ko lottal ak di ko tuutal ci loo xam ne l'islam da ko yëkkati euh, aada da ko yëkkati su boobaa damay nangu ñu ne femme émancipée la c'est vrai que am na si ay anecdotes yu xaw a compliqué ndax man bi may commencé ñu may ràññee ci wàllu waxtaan ak ci wàllu xam-xam à Touba ñenn ñi jàppoon na ne lu xaw a particulier la parce que miinuñu ko donte miin nañ ko sax am na ay jigéen ñoo xam ne ay jàmbaar lañ ñu ngi taxaw am taxawaay ci wàllu xam mais duñu woon ay ndaw du ñu woon ay ndaw euh, man xëy na li ma féete woon ndaw xawoon na choqué ñu bëri ak xëy na yenn importance su conférence yi ma doon invité nga xam ne dama doon euh, euh, waxtaan ak ñoo xam ne xëy na bon mën nañ maa jur et cetera du woon loo xam ne miin nañ ko lool tout donc am na ñoo xam ne dañ ko jël positivement am na ñoo xam ne dañ ko jël aussi négativement Euh, xëy na ràññee ci loo xam ne euh, jàpp nañ ne jigéen da nga war a gën a am ngiim da nga war a gën a nëbbatu da war a laaxatu euh, et cetera waroo fës wala waroo toog ak say moroom waajur di wax ci kaw ñu lay dégg et cetera donc ku nekk ak sa dégg-dégg donc xawoon na choqué ñu bëri dem ñiy def lu bon ak ñiy véhiculer lu bon ñoom ñi ngi jël seen doole yëpp mankoo ko di ko def kon bu fekkee dañ ne dañuy liggéey l'islam ak di def lu baax danoo war a aussi mànkoo góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp fexe bi di véhiculer message de Cheikhul Khadim sta am différenciation ci góor ak jigéen te loolu boo xoolee ci njabootam di ko seetlu njabootam ñu góor ju góor ñi ni mu sonne woon ci seen jàngum xam-xam ak ci seen taxawal diine euh, noonu la ràññeeku boobu la amoon ci njabootam ñu jigéen ñi pour la petite histoire mas na ñëw mas na am ku ñëw ci sëriñ bi ne ko di nuyu sëriñ bi sëriñ bi di ko laaj ab tout tànk mu ne ko ma nga fa mbàkke bu doon euh, bu doon euh, góor a de mata baa waaye jigéen la sëriñ bi ne ko ba muy jigéen famille jigéen nag mooy et bu fekkee jigéen la ni góor walee dalee noonu la jigéen war a dalee ni góor walee jàngee noonu la jigéen war a jàngee c'est vrai que maintenant euh, xëy na ci ñenn ñi ci interprétation bi euh, mën naa am ne des na waaye sëriñ bi moom ak yoon wi jigéen daf cee am wàll jigéen daf ci am doole jigéen aussi daf cee am taxawaay bu baax baax xam nga Sénégal dañuy jël benn notion dugal ci dara boo ne féministe wala féminisme wala genre ñu ne ah loolu baaxul su fekkee ne féminisme bi ñuy mm, jàpp Sénégal ni ñu koy définir non je ne suis pas féministe mais bu fekkee ne le vrai féministe mooy euh, euh, xeex ay cause yu noble ngir jigéen taxawaay bi nga xam ne dañ ko ko joxoon à la base li nga xam ne diine jox na ko ndax amul man damaa jàpp ne l'islam amul diine bu ko gën a féministe kon cër yooyu nga xam ne da koo jox ci jigéen euh, te jamono di dem ba ñenn yenn aada yi wala yenn cosaan yi di ko bëgg nangu wala en tout yenn contexte euh, politique yi et cetera di ko bëgg nangu man loolu laa jàpp ne du yoon kon dans ce contexte oui je peux me considérer comme féministe mes modèles de femmes au Sénégal man euh, en tout cas man sama définition du génn kër Cheikhul Khadim euh, nos plus grands modèles mënuñ ko puiser pudul ci kër Serigne Touba te donc loolu mun mun na bañ a weesu Soxna Diarra Bousso Mariama waaye au delà de Soxna Diarra Bousso ku mel ni Soxna Anta Ndiaye Mbacké nga xam ne euh, magu kër la woon muy soxna su njëkk bu sëñ moo Anta Sali nga xam ne bëri na loo xam ne tey taxaw na ci yoonu murit loxoom moo ci jiitu kon kooku mën naa ne mën na bokk ci ñi nga xam ne mën naa leen tuddee sama modèle nit mën ngaa doon jigéen nga sant Mbàkke ku góor ñëw jox la cër sukkal la wala lu ni mel euh, waaye buñ naan sëriñ ci wàllu jébbalu ak yooyu miinuñu ko miinuñu ko ci ci jigéen doomi sëriñ Tuubaa yi nag daan nañ am lu ñuy ànd ak ñoo xam ne ay taalibi lañ naan dañ doon doon seen i taalibi waaye ñooñu ay jigéen lañ daan gën a am lu ñuy doon li ñu miinul mooy góor di jébbalu ci jigéen loolu du aaday murit donc képp koo xam ne da nga gis ne yow dafa am loo loo bëgg a créer da dem nga créer ko kenn du la ko bañal ah, kenn du la ko bañal nga créer sa tarixa wala nga créer sa yoon wala nga créer sa mouvement mais doo fekk kërug jàmbur loo xam ne musu ko faa def musu ko faa nga bëgg ko faa imposer ba pare bëgg a imposer da ngay des ca kër ga loolu borom ña fa nekkal kër ga buñ la ca bàyyee eh, xëy na eh, eh, yërmande la wala mu doon aussi bañ fitna loolu ce n'est pas mouride ce n'est pas le modèle consacré en tout cas au mouridisme li ñu nangu nag mënees naa doon jëwrin mënees nañoo bàyyee aussi ak euh, ay euh, ay nawlay taalibe ñu ànd liggéeyal sëriñ bi waaye doonu sëriñ di nangu ay jébbali góor loolu existé wul ci yoonu murid ku koy defit euh, man jàpp naa ne bokk ci yoonu murid suñ cheikh bu sëñ Modou Faty Khary dafa doonoon koo xam ne dañoo amoon relation bu particulière te loolu Euh, c'est vrai que bon c'est di ci wax sax dina xaw a kii ci man parce que c'est tout récent ñu amoon relation bu doy ndax man yarowuma ci pegg ci peggam euh, bi ma demee nag ba nga xam ne retrouver ko on a li may wax rek une histoire d'amour bu incroyable mu doon sama papa sama xarit sama confident sama ma wëllëre xam nga nit mën na la jur ba pare ngeen doon ay wëllëre euh, te loolu je le partage avec tous mes frères et toutes mes ko ci wax rek relation boobu la Serigne Cheikh amoon ak yow mu dem ndax damaa gëm ne waajur moom bu demee rek loo ko mën a defal donte danga ko doon jox ay conteneur yi jamono di nga dese mébét ñu ñaan rek suñu borom yaatal fa mu ne te wane la ko ak maam yu tedd yi ak Cheikh Khadim su mu taxaa c'est une lumière c'est une lumière euh, éclatante yërmande gu yàlla wàcce la de manière brute ci Sénégal maa ngi doon bind un jour benn poème mu tudde woon le sourire de Serigne Mountakha il a un sourire boo xam ne quel que soit sa état d'âme quelle que soit la négativité de de de de ses émotions boo jàkkaarloog moom da ngay féex donc ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi lool euh, te wéral ko euh, te it ñun ndaw yi Sénégal surtout ñu gën a di ko bàyyi xel di xool doxalinam ak jëfinam ndax doxalin wu am ñoom la te bu bu bu jar a xel.